dimanche 14 juillet 2024 Thiatouma Kër Baba Ziggy Marley Fass Boy Kara Diène a aca muy combat bu am solo diggante Thiatouma bu Kër Baba combat bu gaaw lay doon nag birib jupp lay doon Ziggy Marley Thiatouma doon nañ jàppante Ziggy Marley Thiatouma do am xeex dañuy bëre ñaari bërekat lañ Thiatouma mi ngi noonu bëree cere jaax daw na ko siire ko daw cer gandal ak moom muy bañ da koy lonk ca xamal de bu ñëwaatee doo ko cooy dugal lonk na ko mu bañ ee eh, caata ama sigi marle caata ama bu kër baaba sigi marle daw nañ jàppante ñoom ñaar caata ama sigi marle caata ama daa bëgg a bëre moom ci première minute yi waaye ndax sigi dina ko nungu sigi marle mi ngi moo daan moo bëreeg menace bu ngee xoox bëreeg caatu Samba Diaw bëreeg moo daan te numéro 2 bëreeg fii daan bisaan jonnu bëreg am si à Dakar caatu ama mi ngi noonu moo bëreg cere càq bëreg Samba Ndiaye bëreg volcan bu saa njàmbur bëreg la joor bëreg caatu maamara daw na jarka doon moom ña ngay bëre na ko ca xamal ña nga ca suuf raam nañ lu xew diggante sigi mar na caatu ba kiis bi laalul est-ce que laalul est-ce que laalul diggante sigi mar le caatu wax dëgg yàlla ñaari technicien la ñu xeexuñu dañu bëre ñu jàpp attention. weñ na ma weñ. la ilaha illallah. am nga caata amaam yi booy ñaa mooy magam ñoo bokk benn papa. moo tax it naa bëre. moo daan dem ki nga xam ne mooy ca mbañi kayre. ma ne la doon bëre gën doomi mar jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñaari xale yaa ngi bëre lu neex. diggante Sigi Marley caatu ama xeex ñoom ñaar Sigi Marley caatu ama Sigi ndaanaan la. premier combat am 2018 digganteem ak Minasu ci la déggee woon défaite ba ren jii lay doog a déggaat défaite 2024 Thiatou Ama mi ngi noonu ñoom ñaar dañoo bokk benn adversaire ñoom ñaar ñëpp daan moo daan te numéro 2 Thiatou Ama indi lëngëm bi Sane Dione indi ko Sigi Marley daan ko tey Thiatou Ama di ko jëloon revanche. ndeysaan moo tax mënta yomb Kara yomb ñoom ñaar ñëpp kenn bëggu cee daanu déedéet ñu ngi xeex xeex bu sew hypercule yaa ngay dal hypercule yaa ngay de Ziggy Marley moo door ay noonu Ziggy Marley wan leen ginnaaw caatu ama ngeen jàkkaar ñaar kenn ku ne ngemboo ngemb lu ko morceau bu vert diggante Ziggy Marley caatu bu kër Baba Alima fàq na ko weñ boppam mu bañ diggante Sigi Marley Thiaroye yee eh, Sigi ma ngay door de. waaw xeex boobu mooy tax buntu am ndax li mu bëgg a def pour mu def ko il faut mu door ko mu Sigi mu jëm koo ku ci nekk xam nga lu sa morom di bëree. kenn ku ne xam nga lu sa morom di bëree ndax yàgg nañoo bokk géew kenn ku ne seetaan nga sa morom mu bëree Sigi Marley bii mooy premier grand combat diggante Sigi Marley Thiatou Ama bu kër Baba Alima Sigi Marley Fass Boy di nuyu waa Fass Boy waaye di nuyu waa Kër Baba Alima 37 maa ngi lay bëggee depuis Espagne moo daan ànd ak ki nga xam ne mooy Sigi Marley daan ko toogal waaye léegi mi ngi Espagne waaye Caatu Ama maa ngi Mara moom moom itam mi ngi ne la mooy ànd ak ki nga xam ni mooy Caatu Ama bu Kër Baba moo koy yóbbu. bu ma doon arbitre damay atte tàkkale leen dem sifflewaat parce que bërëb bi dafa xaw a tëju kenn ku nekk jàpp nga ndengeñ sa morom pour nga tromper sa morom day jafe bu arbitre bi atte woon woowaat leen ci digg géew bi di nga gis combat bu a xam ne bu gaaw lay doon comme ni nga ko waxee woon. waaw suñ leen atte woon yaakaar naa comme ni nga ko a ci la bi gën a gaaw. bërëb dafa tëju dafa tëju dafa tëju. kenn ku ne daa jàpp ndengeñ. moo tax ñoom ñaar. pour kenn am bunt il faut que am kenn ku dóor moroomam mu sigi mu mën koo bët waa ilaa arbitre bi àtte woowaat leen ci digg géew bi gis nga xeex mu sew ba mais ba léegi action day am réaction am moo tax jël mënagul am. mënagul am Malick a wax am maa ne combat bi combat bi fi mu toll ñoom ñaar ñëpp dafa tëj ci ñoom kenn ku ne da ngaa di déglu. marle Thiatou Ama journée Sidi Diakhaté production dimanche le 14 juillet fii ci stade municipal bu Daaru Khoudoss daa war a àtte bëre bu ko ko tëju drapeau ma góor kan di première édition bi loolu nag bërekat moo koy xam bëre bi dafa tëju ku ne da ngaa jàpp ndengeñ fi mu nekk nii boo leen boole waat leen voilà arbitre bi dégg na leen ubbeeku arbitre bi dégg na leen waaye booy ku Caatu Ama ma ngay tekki téere ya taxale na leen aca gaay ñu dem Caatu Ama dindi na takkaay ya ci bu suuf raxasu moom Caatu Ama jiital pied gauche Zigmar de moom dem jiital pied gauche ñaari pied gauche la ñoom ñaar ñu bokk ay ngemb bokk ay tegtal xoola boo xoolee Sig Marley door na moom Thiatou Ama mi ngi benn xaaw bu xonq Thiatou Ama moom tam ngemb ba pare toj ko benn morceau bu xonq ca ginnaaw. ñoom ñaar sawaruñ ci bi sawaruñ ci bi moo tax ku ne da ngay tooñ sa morom yooru jàpp bu ñu jàppee la ñu bëgg bëre comme nii mais loolu du gaaw a sottal bëre du gaaw a sotti. caatu ama jaxabal bi rek lay tante faqaat na ko daw jarganaloog moom zigi bañ xam nga ñoom ñaar dañ ñoo bokk façon bëre bii. moo tax kenn moom dem lee lay bëre. lu sa lal nga lalli ko parce que ci la ñuy dox. ne xam nga li sa morom bëgg dañu ma bëgg a jargandaloo ak yow roof la ca bu ko defee da ngay ànd ak moom nangu jargandalu bi jàkkaarloo waat ak moom ràcc say tànk du la mën a bëtt. ah muy lu am solo xam nga ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne lii mooy sa point fr. gis nga ko gis nga ko lonku na ko ca xamal mais. boo ko day bañ. day bañ day bañ da koo xam. forum la li ma mën nga mën ko nga bëgg ko te daan du gaaw a sotti. du gaaw a sotti moo taxit. Zigué Mbarré Thiatou Ama combat bu ñëpp doon xaar wër wër loo bi yàggoon ñoom ñaar gaay yi yàgg ko bëgg Thiès gaay yi di bañ Sëriñ Jaxate ñëw ba seen ñaari dëkk yi mu tegal leen fi grand combat bi ku njëkk a sonn nag ñu daan la ndax fi mu nekk nii la résistance la condition physique et l'endurance ci moment yi feeñ contact mbër cinq minutes la cinq minutes yi ci toppaat coono dugg na foofa moo fay des ak ngar bi ak condition physique ak la nga liggéeyoon te entraînement ya muy lu am solo boo xoolee ñoom ñaar ñëpp biñ mujjee bëree yàggul Caatu Ama la 26 bi mu lonk ko jaxabal mu koy kaloone mu bañ loolu daa sori loolu daa sori kal ko da koy daan daan na ko Caatoma daan na ko. Caatoma daan na ko. Caatoma daan daan na ko. Big Ginnaaw ko takk na suuf. li nga waxoon moo ci bopp. laa ilaaha illallaah ku njëkk a bàyyi daanu. résistance condition physique macha allah. muy lu am solo ñu lay jaajëfal Pell di kontaan ci Ama. Thiat félicitations. merci Baye Gara. ci kanam lan may xam. ci kanam lan may xam. ñu naan mbëre combat bi kii. parce que ñu ngi baax waa Fakka Sall ci kii rek takk ay rajo lu lu ko neex waxawaati waawoon. combat bi dafa mel ni yéen bi dafa diisoon. waaye li ngay gis sama démb Maguette Seck Boy Niang daan am victoire te si ñaari bon keroog li nga xam ne bon presse bi ma ñëwee da nga ne ma day daan samedi ma daan dimanche waaw Maguette maa ngi sant bu baax parce que bëri na démb xam nga combat bu métti yàlla de yàlla may ko ndam mu teg jaayante dañoo taxaw mais para wala bari kër kër kër mu jàmm du doy borom sama sama doomu ndey kontaan naa ci yow Kara di leen gën a yaatal. tey mobilisation bi dafa bari. fii maa ko moom man Darou Khoudoss laa dëkk ak Ndora di Kër Baaba di nuyu buur àndal Fatick la jugee bàyyi am njàngam ngir fekk si bis bi na fayam Kara jigi nee naa ko maa la man ñaari yoon. jaat fan la jëm léegi. après def ci code après lay leer bu laa waxoon ni Eh, nan ma ñaanal caatu ama mu mu tekki ngembam ma bàyyi lamb nan ma ñaanal caatu ama mu tekki ma bàyyi lamb ku ma bëgg na ma ñaanal loolu Kara yoruma fu gore kot laay laaj mag ñi dama ko jox te dama leen rusatee laaj kot barke Seexu Tijaan damay laaj kot mag ñi dama ko jox dama rusatee laaj kot caatu ama sama wàccee ci terrain bi du daanu nan ma dimbali mu tekki ma bàyyi di laaj mag ñi kot yëpp mag laa yor jaajëf ku mëngule laa jaajëf ngeen kii kii a toog këram sax. gëj gëj